mbokk yi ñëwaat nañ fii ci marché bi di dugaat ci ruqu ruqaan yi tey nag jour Saint-Valentin la ñuy xool ñi doon bëgganteeg marié yeeg célibataire ñu ànd dugg ci marché bi xool jànq ju góor gi ji jànq ju jigéen ñi xool nu ñuy dundee seen Saint-Valentin. waay sant bu baax bi. waay sant alhamdulilah. marié wala célibataire. marié pas célibataire. ana ana madame. si mu ngi fi mu kër ga. tey noonu la ñuy dundee Saint-Valentin. neex rek man parce que man dama marié jour seen valentin kon xam nga saint man maa ko moom man man Modou mais lépp jaam. waaw sant borom Touba rek. ban cadeau ngay dencal madame tey ak guddi gi noo leen koy waajee. waaw jënd yàpp bu yóbbu kër ga ñu fas yéene feete ba bët set. incha allah lan mooy cadeau madame. Eh, moom cadeau yàpp bu bëri 5 5 kilos yàpp rek ma yóbbul ko ko. Eh, madame yàgg na lekk yàpp lan nga koo jox cadeau. moom yàpp la yàpp la choisir pas ay fowukaay la wër na yàlla waaw moom yàpp la choisir yàpp bu bëri ma yóbbul ko ko. madame nu mu la dencal. li ma dencal bëri na sànq bi may ñëw rek mu ngi may woo li ma dencal bëri na trop. liggéey bi ñu ngi sant bu baax. na jour Valentin buñ ko waxee ñu ne fête des amoureux fleurs yi di dem baa yi di dem rouge noir gi di dem léegi yow tey noo gisee jaay bi nga naan jaay événement bi bu ñëwee chaque année ak clients yi niñ daan ñëwee ba xam mi ngi dox. waa ñu ngi sant yàlla bu baax moom wax dëgg yàlla clients yi ñu ngi ñëw moom. ñu ngi ñëw par benn benn ko mais par rapport nag daaw la gënoon a dox kar kar kar quoi. daaw la gënoon a dox quoi daal sant yàlla daal ñu ngi ñëw di jënd dal marié wala célibataire. célibataire. ah amaguma soxna. non amaguma soxna. mais am nga Valentine. nag. bàyyi sa yi nga def. amaguma nag bëgg naa na mais amaguma quoi. yii lu jar yii nii. yii 500 lay jar. 500 waaw. yii 2000 lañ jar. 500 yii lu muy 2000 2000. 2000 koy jëndee. bag yi boo ko bëggee comme. baag yi 2000 lay jar quoi. 2000 lay jar waaw. non boo bëggee nag mën nañ la ko defal 1500 mooy mooy daal ñëpp bi quoi. tante beeg njaay fula. waaw bëggante la ñoo chaque jour dañuy bëggante mais tey moom dañu yokk rek loo rek moo tax wa manam wala. mademoiselle. lay xaar. daa teel xale góor yi yoratuñ kenn dangay liggéey des sa bopp. amoo kenn kenn. non non aw ma kenn. waaye caaxaan. billaay lu dëgër laa tegal ni nooy dundee Saint-Valentin bi tey. jaay wàcc sangu tëdd mbaa nëbal tëdd loolu rek. Eh, eh, eh,